أسير ما لرأيه نسير وزناني هناك أسير جاي بوي فوجي ñaa nga jógee ca boori eh, fee cinquante. cinquante. waaw naka Yon bi. yoonu kees rek kees la naka yoon yoon bi xat nag metti rek sonn rek. xat na xat na torop ñun julli fajar. bi ñuy waaw door a si Touba. ñoo door a si Touba te eggagunu nag sax nag. ñoo ngi yaar yoonu fi wi daaru Musti wi. yoon bi moo xat fii xat na torop sax nag waaye nag sëñ bi jar na ko. Mhm. jar na ko torop paas ba seeru. paas tey daa seer sax nag te xam naan fa ma jëm sax nag amaguma paas ma yóbbu. ñaata nga fay bi nga ñëw. ma ñëw fay naa 4000. 4000. waaw jógee 50. waaw cinquante kay. métti hmm, na kees. bari na quoi. waaw loolu garaawul. sëñ bi jar na ko sant sant rek. sant rek xewlu sëriñ bi jar na jar na lu ne. Euh, non c'est vrai que emprunté yi moom chauffeur yi moom augmenté nañ tarif yi mais sëñ Touba ëpp na ko. Dakar ngeen jógee. waaw fan si Grand Yoff. HLM Grand francs. 6 000. cher na de. na trop. ban heure ngeen fa jógee. ay 7 heures yooyu noonu. bay mhm. ci yoon bi. trop ab yàgg ngeen jaar. waaw daa xat. Mhm. ab yàgg daa xat. bi. yoon bi moom métti na lool. Mhm. paas bi cher na. ñaar six mille ngeen fay. waaw bis ngeen dugg wala. waaw bis lañ dugg waaw. appuyage ngeen jaar. waaw appuyage lañ jël waaw. waaye jóge ban ngeen fa jógee. Oh, ay sept heures ci suba. yoon bi xat xat na. xat na torop sëñ bi jar na ko def. waaw macha allah sëñ bi moom jar na lu ëpp lool. fan ngeen jëm ñun ñu ngi jëm Daaru Minam. Daaru Minam waaw. jërëjëf waaw kii. kii na daa xaw a xat de moom. daa xaw a xat. waaw ñaata ngeen fay. 2000. 2000 ngeen fay. waaw ngeen dugg kaar ah, na. xat na kay. mais màggal ah neex na de ñoo ngi doog ak si moom. ba ngeen fa jógee. ay 11h rek. ay 11h door a egg si. waaw jërëjëf. ñuy ñuy doog a siyaar bu baax da nga door a yegg Dakar. Dakar. Dakar parcelle. parcelle ñaata nga fay na pas sen lool ndax dañu son trop ndax dañu fay ben auto 12500 mu ne ba ci yoon bi pan ñu ma ci jëlaat beneen auto fay ko 7000 mu seer bay bëgg dé way lepp rek bis bi ko jar quoi vraiment sen trop ñi ngi egsi ni wara dem ba suñu kër way ma daan leen dëkk waaye ndox mi bari fofu daan ko auto bo wax mu ne la fofu ndox dafa mëno mënoo dem parce que dañuy obligé toog nii xamoo ba kañ quoi soo ba léegi ñu ci yoon wallahi métti na trop ndax xat na lool xat na lool xat na lool vraiment daal ñëpp daal ñu ngi jëm si ci bisub sëñ bi daal comme niñ ko mën a xew sëñ bi jar na ko lool te vraiment daal lim lim liggéey daal war na ne yàlla fay na ko daal ndax daal wax dëgg yàlla ñun moom coono yeeg yëpp am na waaye moom lim dajoon mu ëpp lool kon ñun daal ñu ñaan yàlla egg ci jàmm dundal ko ci jàmm dellu ci jàmm rek ñun tamit kontaan nañ bu baax yéenay waa euh, bis si yàlla na yàlla jàmm kawel liggéey bu baax a baax. macha yaa ngi door a egg ah? waaw ñu ngi door a yoon bi. waaw yoon bi xanaa xat rek. bëri na bëri waaw. amutage moom xaw na bëri wax dëgg yàlla mais nag noonu la parce que bis bee ni toll c'est normal. fan ñun Dakar lañ jógee. waaw Dakar 10 000 la paas bi. oto bu ndaw waaw bu ndaw mais naka ma ban ngeen fa jóge ñu ko jóge 10h ci suba 10h door ex jamono ji waaw ñu door ak seen ma ngi jéggulu rek ci bakkan billahi dama xaw a kii fu mu waaw lépp lépp sëñ Touba rek yoon wi alhamdulillahi rabbil alamin sant sant yàlla baax Dakar lañ jóge man ñaata ngeen pass 10000 francs lañ pass depuis 10h neex rek waaw amoon nañ ci ay tuuti jafe-jafe ci yoon waaye sant yàlla bu baax waaw nu ngi sant bu wér waaw sëñ bi moom yaakaar naa lépp luñ ci def rek jar na ko paas moom amul solo ndax bu fekkonte ne dañuy wax li ñu yore sax def ko ci jaral nañu ko waaw naka yoon bi xat na wala xatul waaw am na ay barab yoo xam ne xaw naa am ay xat-xat nag waaye lépp tawfeex la ndax dara warta yomb ndax ku baax ki laata muy woote lii dafa am fu mu jaaroon foo xam ne na ni ñun ñii mënuñu faa jaar waaye lu ci man a xew tamit ñun moom dañuy sant yàlla bu baax rek waaw. jërëjëf ma ah, daal ko accès wu ma tey de man maa ngi fi depuis talaata. yaa ngi bi. sant yoon bi sant bu baax a baax. Mhm. waaw alhamdulilah ñëw ñaar ngeen ah, man de man man bokkul man sama oto bopp la woon. ah sa oto waaw yoon bi xatul ak yooyu. déedéet lépp Serigne Touba rek sante ko borom màggal gi moo ko jar daal moom moo ñu ko moo ko liggéey. muy bésu mbégteem moo tax ñun ñëpp ñu ñëw fi daal wax dëgg yàlla màggal gi neex na te dara xewagul barki borom Touba ñun moom ay taal bi Serigne Saliou luñu ay ndongo Serigne Saliou lu ñu am Serigne Saliou la waaw. Serigne Saliou sant bu baax. da ngay door si. waaw sànq fan ngay jógee. man Dakar mais Kaolack laa dëkk nag. Kaolack nga jógee. waaw Kaolack laa jógee. waaw ah, naka paas bi paas ah, seer na trop sax trop trop. ñaata. non bis lañ jël te mille lañ paas te bu dara xewul 1500 la. 1500 waaw. trop. naka yoon bi xam na. waaw ma sant rek sëñ Tuubaa jar na lu raw loolu. waaw jaral nañu ko ko am ko waaw ñoo wax gars yi ñu gën a yombal paas rek xam nga. def si taw feex daal ñoo ngi soog a ñëw nii sànq nii. bëri ngeen fa bàyyeekoo. ay ay dix heures onze heures. ay dix heures onze te gars yi boo ñëwee fu neex lañ lay wàcce bàyyi la nga dem te dañ lay fayee ko lu seer. waaw ah, safar nañ ci profité ngir yàlla jaamu ci yàlla ko am ndax ndax si taw feex la quoi te ku ca defarul déwén rek kon nañ ci jàpp ngir yàlla yombal paas ak dem beeg dikk bi quoi bu ñu sañoon ñun ñëpp dañu am oto wala war a waay di ko dawal comme amuñ ko nag nañ ci jàpp ku nekk fa nga nekk nga jaamu ci yàlla quoi jaajëf liggéey bi naaj na jërëjëf. <laughs> ñu ngi lay ziar. na yàlla nangu ziar. naka yoon bi. sant bu baax. alhamdulilah ñu ngi si ngeen si jàmm. waaye si nañ si jàmm moom amul benn problème. fan ngeen jógee. man de maa ngi jógee Kaolack. maa ngi jógee Kaolack. waaw. paas bi ñaata. paas bi dëkk-dëkk paas bi moom séewut moom ndax ndax benn oto boo ma indaal. moo la ah. sama dëkkandoo foofu si koñ bi. naka di yoon bi mbaa xatul ak yooyu. déedéet yoon bi moom amul benn problème sant yàlla rek. Mm-hmm. waaw ah. nga jëm ni say bagage. maa ngi dem ba euh, kii kii wu ñëwee yow jàkk waaw. jàkka ñu koy jërëjëf. jërëjëf màggalu jaam yaa nañ ko màggal ati at ñun ñëpp ñu fekk ko te yëpp ñu si ñaan nag yëpp ñu si jaay yàlla sëñ Tuubaa nangu ko xéewal géeg yëpp yokk dégg nga da ngaa da ngaa sonn da ngaa sonn naka yoon bi na sa coono na euh, sa yàlla bu baax alhamdulilah. Mhm. naka yoon bi. ça ñu ngi sant yàlla bu baax. ñu jógee ba dakaar fan si Dakar si fële Kër Massar. Kër Massar naka yoon bi xat na xat na wala xatul. Ah, non pas tellement nag parce que si suuf lan jógee suuf lan jaar moo tax. ay vers de huit heures. vers huit heures doo egg presque ay quatre heures rek. Ah, man nag euh, sept places laa jël. mais euh, sept cent mille la la paas. cinq mille sept yoon bi neex non neex bu yem rek. yéen a ngi waaj màggal gi daal. waa gis na ñu ngi waaj màggal gi. jar na ko. waa jar na ko nag jar na ko. jërëjëf. <laughs> merci beaucoup ok. tuuti rek fan ngeen jógee ñëw màggal si. xanaa ngay mexe. ngay mexe ngeen jógee. waaw fa lañ jógee de. ñun ñun ñoo bokk région de Thiès naka màggal gi. xanaa sant yàlla rek bi ñu egsee ci jàmm. yoon bi na wala xat. waaw na nag moom parce que ba ñu jógee rek ngay yàgg na. depuis huit heures ba léegi waaw ñu ngi doog a egg si. yoon bee xat xam kon embouteillage am na. yoon bee xat waaye lépp sëñ Tuubaa ko waral. ñaata ngeen paas. ñun xanaa 4000. 4000 waaw. cher trop te bu oto bu sax waaye posé leen oto yu ndaw yi 10 000 la. loolu yëpp eh, màggal gi moo ma ko waral. moo rek fekk fekk bi sëñ Tuubaa bi rek jar na ko. jar na lu ko xéewal rek. jaajëf kanam da ngay door a yegg si. waaw bay door a yegg si naka naka yoon bi. ça va. naka yoon bi. ça va merci. fan ngeen jógee. ñu ngi jógee Dakar. Asiru.